Coupe d'Afrique des Nations nga xamante ni ay far rek moo si des ñu amalee ko foofii ca Cameroun mu doon loo xamante ni bëri na lu nit di si di yàbbi rawatina ñooñee nekk foofii ca Europe ñu ko naan président bu FIFA wala sax président bu a rawatina ak ki nga xamante ni jamono ji moom mooy moom mooy président bu fédération camerounaise de football ñu koy woowee Samuel Eto'o waaye nag ginnaaw li nga xamante ni ñoom la waa FIFA bëggoon rek mooy li nga xamante ñu annulé li xale foofee ca Cameroun bu atub 2022 euh, mu doon loo xamante ni euh, képp kuy euh, africain xaaru ko loolu nga xam yaa ngi koy xaar loolu ci foofee ca Cameroun waaye nag ki nga xamante ni président bu confédération africaine ba football moom nag nee na lépp li nga xamante ni mooy coupe d'Afrique la dinañ ko amal foofee ca Cameroun coupe d'Afrique bi nee na mënul wax ba ñu annulé ko moomee di président confédération africaine de football di wuyoo si turu Patrick Monsep moom nag nee li nga xamante mooy coupe d'Afrique des nations dinañ ko amale foofee ca Cameroun démb rek lu ko wax ba mu nekkee foofee ca Cameroun nee na nag 33e édition bu dina am foofee ca Cameroun du ko reporté ak kii di Samuel Eto'o fils moom rek di pégal li nga xamante ni wala sax di li nga xamante ni mooy kaddu bu président confédération africaine bu football ndaxte nee na lii di euh, coupe d'Afrique des nations dinañ ko amalee foofee ca Cameroun nee kenn du ko yóbbu ca Qatar nee na ca dëkkam boobee lañ koy am démb nag la ko wax foofee ca Strand d'Afrique ndaxte nee na bu fekkee lii di moo tax rek euh, tubaab yi euh, bëgg acca lii di euh, li nga xamante ni mooy coupe d' afrique des nations wala sax ñu annulé ko nee na nag ba ñuy joué seen coupe d' europe rek nga xamante ni dañ ko doon joué ay dëkk dëkk te stade da doon fees ba fees ba tuuru sax moom Eto'o moo wax loolu rek nee jamono jooju amul benn raison bu tax ñu naan nañu annulé lii di coupe d' europe te kenn annulé ko kon rek bu ñu bëggee annulé suñu coupe d' afrique des nations dañoo yàpp ñun africains yi waaye nag nee na lii di coupe d' afrique des nations dinañ ko amalee foofee ca Cameroun ci le 9 euh, janvier jàpp le 6 février lañ koy amal ca Cameroun nee na moom Eto'o dara mënul tax ba ñu reporté wala dara mënul tax bañu ñu annulé lii di euh, Coupe d'Afrique des bu nar a am foofee ca euh, Cameroun moom Eto'o nag nee na dañoo yëpp africain yi moo tax rek ñu naan li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique des Nations dañ ko bëgg a annulé ba mois de juin jàpp atub 2022 nee na loolu du dëgg du yoon waaye nag moom Eto'o di delluwaat rek di dalal xelu africain yi naan leen Coupe d'Afrique des Nations élection dinañ ko amal le 9 euh, janvier jàpp euh, le 6 février foofee ca Cameroun